xam nga di xam nga di wax sénégalais tamit encore une fois ñun ñëpp ñu ngi leen sant leen gërëm gis nañ seen taxawaay xam nga li mooy wan ne ñun showbiz boolewul ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi xam nga li ma fi gis nii daal man seet na sama xol trop mais maa ngi ñaanal ñëpp barki alxuraan li am nii seet na xolu ñëpp seet na xolu ñëpp macha allah. déjà macha ko waxee rek si foofu sax lay ñëw tey ñu gis fi kanam bu ne artiste bu ne euh, ku nekk ci aar bi kese yemul ci aar bi kese waaye tey ñoom ñëw nañ gunge waaw Sénégal Sénégal Sénégal coono fi nekk rek mais kenn bañantewul ñun ñu fi nekk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi barki alxuraanu karim gars yi bi ñuy jaawale showbiz ak ak naqar benn ñun ñu fi nekk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mhm. bañantew ñu lii mooy wan ne bokk ndey ñoo bokk bàyyi mu amee naqar ñëpp ko ñëw xam nga artiste yëpp gis naa fi ku nekk am na ñoo xam ne sa ñëwuñu waaye seen loxo ñëw na mhm. am na ñoo xam ne ñëwuñu waaye ñi ngi woote kon tamit lii sant yàlla rek barke si am xadim sant yàlla baax daal. man message ngay lancé ñi nga xamante ne mooy artistes yi ak ñeneen ñi dul artistes yi ñi nga waaw non non bu dul permis sax beneen natt mun na ñëw ci keneen. Hmm. maanaam affaire bu permis rek de affaire day ñaan yàlla mu yem fi rek. muy artistes yeeg muy ñu yëpp day ñaan yàlla lii mu yam fi ndax lu war a am la rek am na sant nañ yàlla baax a baax na sant nañ ci ñëpp. sant nañ ci artistes yëpp ba ci média bi yéen ndax soo ba tey yéen a ngi fii bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp waaw lii laa gëm nit bu amee naqar da ko ci fekk si bu amee bànneex da nga ci fekk kon kontaan lii ngeen def nii yombul sant nañ leen ci gërëm nañ leen ci. yal na yàlla fay. bari taw du la teelu bari xam naa ni suñu sédd ngeen jëm suñ koy génnee ngeen yëpp yëpp yëpp yëpp. ñun sédd bu nekkul ci jàmm ñun mun ñoo nekk ci jàmm. ndax nekkatu suñu weykat suñu frère la ñun ñoo bokk deret boo amee naxar dañ koy yëg boo xoolee kanam yi ko ci xool sa kanam xam ne kii nekkul ci jàmm barke Serigne Saliou Mbacke ñu fa seen dem ànd ak moom nag ba këram incha allahu rabbi di xaar nag samedi incha allahu rabbi mu dóor nit ñi xam nga kontaante rek comme dab incha allahu rabbi mais bari doo bu neexee yàlla bari waaw sànq ba léegi gis nañu pression ci sa kanam waaw mais mënul da nga ko ñeewantal wala lan la mënul ñàkk mënul ñàkk ku mel ne Siri Diop ak nu mu mel ci man sori ci man mënul am naqar mais am bànneex mënul nekk parce sëriñ Serigne Saliou Mbacke tey fii mu tëdd nii man suma fi mënoon tëdd dama koy tëdd dama fay dem tëdd ji moom mu dem ñibbi ndax sama deret la fii mu tëdd nii barki sëriñ Saliou Mbacke su mënoon tëdd remplace dama fi ñëw tëdd yàlla xam na loolu si sama deret la ay way boolewu ñu dara boolewu ñu dama koo bëgg te yàlla rek tax yàlla xam na loolu bu nekkoon 12 sax dañ koy fay moom na ci jàmm rek barki Serigne Saliou Mbacke na ne ci jàmm rek mais Barito ak oto bi coow li nga xamante ne jur na ko yëpp fi mu xanaa déggoo la ma la wax dama la ne dama la ne lii bu amul woon di nga dégg ñu ne Sidi daw na ba oto bi këpp wala di nga dégg ne Sidi rey na nit maanaam yàlla lépp lu mu def rek am na lu tax maanaam lii am na lu nga koy fànkal ci lu bëri ñun kenn meru ci parce que naa mënoon na nekkee ma maanaam arrêté bii nii mënoon na nekkee beneen anam mënoon nañ ko jàpp ci dorog wala ci faux billet wala Sidi xam nga def na leen loo xam ne waru koo def mais lii nattu la ndogal la boo xam ne mun na wàcc Barito mën na wàcc yéen ñii sax mën na mën na wàcc yéen. Mm. barki alxuraanu karim. sax nañ daal contrat yi ñu doon wax ni artiste bi perte na ko. contrat Sidi <laughs> mënu perte benn contrat nan lay pertee contrat contrat yi kay ne day gën a bëri ndax nit ñi dañ koo gën a bëgg. NAS. tey nga gis tamit am na ci ay faramaare ñu ñëw apporter seen soutien Sidi Diop. yàlla leen ci yàlla defal jàmm ci loolu ñu def faramaare ni loolu ñu def yàlla leen ci yàlla gën a taxaw. Mm-hmm. ah mais bien fii lu baax lu rafet dañ koy wax Faramareen bu nekkee li nga wax ñoom ñoo ko def yàlla na leen yàlla gën a taxaw. mais gis dañoo def leen war Sidi seen frère la ñun duñu ay xar duñu ay bëy ay nit lañ soo bis mbii nii du dara kaf la rek ak bu passé dañuy nekk ci leneen Faramareen li ñu def ñu dañ ko war a def parce que ñoom bu nekkoon ñoom seen frère Sidi nii lay taxawee rek mais kontaan nañ trop mais Faramareen ni tamit li ñu def nii seet na xolu ñëpp seen devoir lañ waaw ginnaaw ban sante sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaan yàlla sunu borom màggal gi ñu génn ñu def ko ay ati ati at lool te ànd ko wér baal ñëpp te di leen baal àq donc tey dañoo ñëwoon en tant tamit damaa ñëw en tant que wóllëre koo xam ne xam naa ko sama diggante Sidi mooy bi may def mariage déplacement bi mu def rek ñëw ci sama mariage en même temps damaa ñëw taxaw taxawaayu Wally Seck mu mel ne tey Wally Seck ñëwoon mu fii ci ci audience Sidi bi ñu am ci mbégte nag biñu déggee ne libéré nañu ko parce que kenn ku ci nekk da doon ñaan yàlla pour ñu bàyyi ko mu ñibbi ci këram donte erreur day dal ku nekk ndax nit juum amul ku dul juum ndax yàlla rek dul juum mën na ma dal man na dal keneen mën na dal keneen ak keneen ak keneen mais nag ngi sant yàlla ginnaaw may nañ ko libéré ko ba mu war a euh, ko waaye est ce que da ngeen parce que ñoom ñoom ñu fagaru moom ci boppam mooy gën a fagaru ah. xamaat ah, boppam xam nga kilifa du ndaw ah. yàlla bu la dénkee dix personnes nga leen di jiite rek kilifa la donc kon moom moo war a fagaru moo war a gën a xoolaat boppam mais man fagaru naa te maa ngi xool sama bopp am naa passeport am naa permis am naa carte d'identité am naa lépp sama dëkk lépp loo xam ne ak bi dama ko war a matale maa koy matale boo nekkee koo xam ne tamit da ngaa siiw da war a joxe jàngale école nga waruñu la dégg ci détail waruñu la dégg ci ñàkk fayda wala wala buñ la ci buñ la koy jëwee sax yow buñ la séntu ci gaalu xaj fekk la ca nga leen donc la boo xam ne dal na ko moom artiste bi di Sidy Diop ñaan yàlla dootu ko dal te moom boo fa xasee dugg dina la jàngal lu bëri sa àdduna ñàkk na ñaa ñaa ñàkk permis lu doy waar la nit ñi dañ koy sàggane nit ñi dañuy sàggane permis mais ki nga xam ne da ngaa dem nga concentré wu ci sax carte d'identité da nga xam ne carte d'identité day dugal xaalis sa passeport boo ko amul tamit doo mën a tukki kon respectel sa nga xam ne boo ko yorul doo mën a daw ci am na beneen artiste jeex moo jeex waaw kooku am na permis moo jeex waaw dafa war a dem ko hmm. tey buñ ko jàppoon moom it mën naa wax ne dañ koy dañ koy defee rek parce que léegi gars yi moom jub jubal jubanti bi moom hmm. xamuñu artiste amul kii amul kaar lépp lañ koy teg ci yoon ku nekkul ci yoon ñoom dañ lay kon sii lii mu jógee dina ko jàngal àdduna dina xamaat boppam bu baax a baax na am fulla ci boppam am fayda ci boppam am personnalité parce que boo xasee ba nekk kilifa da war a daw yu bëri yu bëri bëri bu la kenn seentu ci gaalu xaj fekk la ca la permis yàgg naa dégg si biir amul permis man jox ko wutal permis loolu yàgg na 2016 foofu man année kon donc war na concentré wu wut permis war na concentré wu lépp loo xam ne dëkkam ma ngi koy tere mu bañ ñi nga xam ne bëgg nañ ko te yàlla xam ne tamit artiste daal jàngalekat la war a nekk. jàngalekat loolu la di leçon la. Hmm. artiste école la. Hmm. war a joxe ay leçon yu jaar yoon. waroo def waroo def faute quoi. donte nag jum moom mënul ñàkk ci doomu aadama mais booy jum na jum ci loo xam ne tey jii kenn du la ci xeeb ne moom moo di image am maanaam notoriété ma xam bi nit ñi xam ba tax ka ne moo di permis ba li andil ko ko est ce que yow da ngay partager avis amul xam amul ñàkk xam police amul xam amul ñàkk xam boo nekkul ci seen liggéey la def mhm. man maa ngi am na gendarme yoo xam ne xam ne ma ak police dañ may jàpp taxaw ma accueillir leen waxtaan ak ñoom laaj ma permis ma jox ñu ma après ñu dem ku nekk dem gis nga nit da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay complet rawatina boo nekkee koo xam ne yow boo waxee benn wax boo waxee sax fukki nit dinañ la déglu wala ñaar fukki nit kooku war nga di def loo xam ne tey ku la ko dégg rek da la war a naw waaw mais nag natt la boo xam ne yàlla moo ko teg ci ndoddam na ci santaat yàlla bu baax ndax mënoon naa nekk ci wala ñu jam ko wala naa nga mën addee fi am nii xam nga. dëgg la na santaar yàlla bu baax a baax. boo ñëwee mel na ni waali moo waaw mel na waali moo ñëw est-ce que moom tamit déggoo ngeen amul loolu jërul ma ci déggul waali. waali mooy man man maay moom bu ma ñëwee fii jëmmam laa fi ñëwee ak tamit ñëwee fi ngir kóllëre goo xam ne seex naa ko si di ndax bi may takk soxna daf déplacé wu ñëw sama mariage alors naka nga gisee amende bi nga xamante ne teg nañ ko ci loolu sax muy 150 mille jàpp nga ni loolu nekk na loo xamante ne si lu war a mën a nekk la wala. dafa tuuti amende c'est parce que amende bi du du du kenn ci nguur gi lay demande rek. Mm-hmm. Ah, xaalisu réew mi la xaalisam la en même temps xaalisam la jël rek verse ko ci xaalisam. Mm-hmm. donc loolu moom mm-hmm. ñu ngi jaajëfal merci beaucoup. lii yàlla bu ko dalati yàlla bu mu dalati kenn waaw ñi fi nekk sax. si barkeb sëñ Fallou maa ngi leen di ñaanal suba suba suba suba yàlla nañ bàyyi ñëpp ñun ñi bi dem seen kër si barke sëñ Fallou mais mais en fait euh, gis nañ ne artistes yu bëri am na ñoo xam ne amuñ permis ba léegi te ñu ngi dawal mhm. loolu lan mooy sa xalaat tey waaw mais loolu mooy li ma la wax rek njuumte mënut weesu loolu ñàkk permis di dawal loolu erreur mënu ko weesu mais yaakaar naa ne ku du juum amul juum na d'accord ne ne juum na ah waaw ñeneen ñi koy defit li ma leen di li ma leen li ma leen di ñaan rek mooy que rek ku ci amul permis rek nanga nga dem uti permis ci barki sëñ Fall waaw di kontaan ci yéen ñëpp waaye jaajëf mu war ko teggi suñu borom teggi ne ko duñ def daal lu dul sant rek lii lañ ko doon ñaanal ñu ñëpp si fajar ba léegi ñu ñëpp ñu ngi fii wax dëgg yàlla kenn lekkool kenn añul kenn deful dara liñ ci jublu woon nag tàllal suñu loxo ñaan suñu borom te suñu borom nangu na ñaan bàyyi nañ ko di ñaan rek suñu borom defal ko xéewal waa mais àdduna ku juumul rek maanaam àdduna boo juumul ah rek doo am leneen lenn lu la ci fekk jéggal ko parce que jeune la tamit ñu nekk ci yoonam ah suñu morom la saa yu ñu amee laa def ko ci gis ñu ñu tam di ñaan non yàlla baax na nañu ko ñaanal nañu ko ñaanal nañu ko ñaanal yàlla baax na yàlla na ko yàlla ko parce que nag bu wees ñun ñëpp ku ci nekk mën na la dal ku ci nekk ñun ñu yéen ñii sax boo leen doon léegi ku ci amul sax wala ku ci yorul sax waaw xam nga ñun nag du ma la nëbb showbiz mooy loo xam ne ci kaw mën na ñuul muy gars yi di defante ku nekk di defante mais kenn yéenewul sa morom lu bon kenn yéenewul sa morom lu ñaaw ci kaw nag gars yi ñu showbiz ñu mën nañ ràcc jëmale boor bala ñuy ràcc jëmale boor bala mais ñun entrepreneur de garde xamante nañu ci yenente nañu jàpp loolu laa xam loolu laa gis moo tax tey ñu ñëpp ñu def euh, délégation yooyu ci loolu ceeb la jaajëf